xalifa am nga gan yu mag ñoo xam ne seen maam seen maam dafa def ci lislaam jege lool yonent bi seen maam xaadimu rasuul xaadimu rasuul loolu rek doy na sëriñ xalifa ñii deretu xaadimu rasuul ñoo la seet si seen maam liggéeyal yonent bi seen maam liggéeyal lislaam réew moo dem réew moo dem ci àdduna kër xaadimu rasul la nga fa amul benn kër booy benn réew booy dem ta fekkoo fa kër xaadimu rasul loolu nag li mu tekki mooy ni mu baa baax dem cib dëkk da fekko fa Cheikh Mourtala def fa daara def fa kër def fa juma ah bariwul de waaye fekk si na na ñoo xam ne seen maam xutbu la fekk si na nu njabootu cheikh bu mu Kounta Sëñ Abdou Samad ñu ngi lay ziar bu baax ak délégation bu mag bii nga àndal lii nag mooy waneen rek fonk goo xam ne tuubaa fonk na ko Njaasaan waaw waaw waaw ñu ngi ñëw léegi kay ci loolu la ñuy ñëw waaye ngan gi nag day nuru surtout sëñ Moussa ah surtout sëñ Moussa Ka di bu ànd ak doomu ah, surtout Xaadimu Rasuul xanaa wàcc na ah surtout sëñ Moussa Ka keroog ba Cheikh al Bekkaay bàyyeekoo Njaasi Njaasaan waajurum wa Cheikh bu Mouhamed Kunta yónni ko mu dem nemmeeku Xaadimu Rasuul booba déggagul Cheikh al Bekkaay Xaadimu Rasuul seen maam daa génn ni ana gan gi ana Cheikh al Bekkaay Cheikh al Bekaay nanguwu koo wuyu ana Cheikh al ba muy ñetti yoon Cheikh al am lu ko ne kii tey jii jëm ji turu Cheikh al Bekaay ci moom lay feeñe keroog ba mu ñëwee koo jógee njaareem bi mu ñëwee dafa fekk Cheikh Bou Kounta ci penc mi daa nuyu Cheikh bu Cheikh bu rek Cheikh ne ko Cheikh al kon mag ñi yàgg na noo déggoo waaye noonu lañ leen doon nuyu rek. sëñ Baara Abdoulahat maa ngi lay nuyu bu baax moom ku min kër gila waaw moom Cheikh Sidil Maxtaar moom la daan yónni sëriñ Baara moom la daan yónni sëñ Muntaxa yónni na ko fi budul benn du ñaar kon délégation bi noon ko bëgga xam waaye ñu nuyu bu baax kii nga xamante ne ni dafa dafa ndóbinu ci diggante bi Cheikh bu kuntaay maamam sëriñ Tuubaay maamam ñu ngi lay nuyu bu baax Kunta Sidi Maxtaar am na nu mbégte lool yow Mbàkke Kunta lun la ci santale war na jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ci turu sëriñ Abdou Samad moom sëriñ Chouaïbou eh, ak bokk yi nga xam ne ànd na ak ñoom ci ndigalul Cheikh Mouhamadul Muntaxa xafidahullah wa eh, mu ñëw fi ngir doxuk bokk waaye itam jóge ci këram ñëw ci këram ñëw itam ci waajtaayu bis bi nga xam ne noo gi noo ko bokk di bisub yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Cheikh Mamadul Muntaxa tànn ko yebal ko boole kook bokk yi nga xam ne ñoom la àndal bokk yooyu nag lanu leen bëgg a tuddal seeni tur ni ko sëriñ Abdou Samad composé itam daf ko barkeeloo ca euh, delegation bu mag ba nga xam ne ku tedd ki jamono yi mu fi nekkee te Seydil Hadji Malick Sy radiyallahu anhu jóge fi ñam tànnoon da caa tànnaat ab lim boole koog ay woroomi xam-xam ak ay bokk ngir wane bokkoo gi nga xam ne muy bokkuk lislaam ak bokkuk deret gi nga xam ne yàlla boole nanu ko ñor gim ñor Cheikh Mamadul Muntaxa ñor ko waatu Tuubaa looloo waral mu tànn délégation bu am solo bi ngir ñëw bokk ak yéen bis bi ngir dundalaat bokk gi bokk ak googu yi hmm. euh, sëriñ bi bi muy ñëw euh, mi ngi ànd ak sëriñ seex Bamba Mbakke moom sëriñ Abdul Ahad mi ngi ànd ak sëriñ Mouhamadul Muntaxa Mbakke moom Cheikh Mouhamadul Murtada xafidahullah wa euh, Euh, radiyallahu anhu bi muy ñëw itam mi ngi ànd ak sëriñ abu madiana bu moom sëriñ muhammadul muntaqa mi ngi ànd itam ba tey ak sëriñ abul baraka moom sëriñ basiru mbakke moom cheikh muhammadul fadil mi ngi ànd ak ba tey sëriñ muhammadul fadil moom sëriñ moodu mbakke moom sëriñ abdul qadir mi ngi ànd ak ba tey sëriñ Mbakke Abdourahman moom sëriñ Abdou Khari di doomi ndey sëñ Mbakke Madina ak sëriñ Daam Abdourahman Lo di borom xam-xam di conférencier bu mag ci yoonu Murit ba tey mi ngi ànd ak sëriñ seex Baara Mbakke moom sëriñ Abdoul Ahad moom sëriñ Baara ni ko sëñ Bekkaay waxee di ku miin béréb bi. ba tey sëriñ bi mi ngi ànd ak sëriñ Fallou buso moom sëriñ Assane buso di sëtub sëriñ Mbacké Bousso mi ngeen xam ci yoonu murit di boroom xam-xam bu mag boobu ba tey sëriñ bi mi ngi ànd ak sëriñ Abdou Jaxate di sëtub sëriñ Bay Jaxate waykat bu mag ba te ñëpp xam ko ci yoonu murit di yeete daan laabire ci lislaam ba sëriñ bi mi ngi ànd ak sëriñ Mamor Dem di boroom xam-xam di sëtu sëriñ Mouhamad Dem di doomi sëriñ Mat Dem moom njaareem di boroom xam-xam bu mag bu nekkoon ci njaareem ba sëriñ bi mi ngi ànd ak sëriñ Fallou si moom sëriñ Modou Khady si moom sëriñ Malick si ba tey mi ngi ànd ak Cheikh Abdoul Ahad Ka moom sëriñ Mouhamadul Kabir Ka moom sëriñ Moussa Ka ba tey ngi ànd ak sëriñ Moustapha Jaxate di kuy yëngu ci wàllu social di kuy jàppale nit ñi ci Touba moom itam bokk na ci délégation bi ba tey sëriñ bi mi ngi ànd ak sëriñ Sultaan Diaw di sëtub sëriñ Mouhamad jaw Paxa mu ñu daan wooye sultaanul aarifin ñu bari xam ko ci xam-xam ak euh, ragal yàlla bokkoon ci yoon wi di bokkoon ci seexi sëriñ Tuubaa yu mag yooyu ba tey sëriñ bi mi nga ànd ak docteur Khadim Silla di sëtub sëriñ Mirina Silla sëriñ Khadim Silla di borom xam-xam euh, bu ñëpp xam ci yoonu murit waaye itam ci dox bokk gi nga xam ne yàlla boole na ko sunu diggante ak turuq yi di ko ci jàmbaare lool tabaarakallah ba tey sëriñ bi mi ngi ànd ak sëriñ Moustapha Diané di sëriñ di sëtub sëriñ abdu Diané moom itam bokk ci seexu sëriñ Tuubaa yi ba tey sëriñ bi mi ngi ànd ak sëriñ Seexuna Mbàkke moom sëriñ Tafsir Mbàkke di wëllëreew sëriñ bi di mbokkam ànd ak rakkam sëriñ Fàllu Mbàkke moom sëriñ Tafsir Mbàkke ñii ñooy ñi nga xam ne ñoom la sëriñ bi àndal sëriñ Muntaxa yebal leen ñu ñëw fii ngir ñu jóge ci seen kër ñëw ci seen kër ngir dundal bokk googu nga xam ne moom la ñu seq kon xam naa li des ci waxtaan wi dañ koy jox sëriñ bi bu ko defee moom mu àggale ko incha allah. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu si dina leen nuyu baax a baax di nuyu kilifa gi di ko jottali kàddu kilifa gënu bàyyi ko sax mu yebaloon na fi ma ànd ak sama bokk muy délégation bu mag boo xam ne dañ ko tànne ci biir yoonu murit ngir ittiwoo gum ittiwoo benn jullit yi ak jokk bokk ji leen yàlla boole di bokk diine ak bokk deret loolu moo waral mu tànnloo ma délégation bi ma jiite leen ngir ñëw fii ci yéen di feddali li nga xam ne doxoon na diggante maam ya ak sëriñ bi di dox ba ci moom da ngeen rafetal lépp loolu it mi ngi leen di tàllaat ay loxo di jokk bokk googu ak ànd googu di ko feddali bu baax a baax ñoo ngi leen nuyu bu baax a baax li nu boole day lislaam waaye ak bokk danoo boole it bokk deret foo ci dem rek gis fa ku jóge fële dëkk fa te sëñ ci di doy na ci sëkk misaal <laughs> bokk buñ demee ba kenn mënu caa jëw morom ma foo toog rek surtout kii nga fa nga xam ne loolu genn bokk la kon nag Kunta ak Mbàkke moom dañ dañ dañ ñaar lenn lañ te loolu it moo xew seen diggante moom dañuy dund te muy dëgg kon nag lii moom dañoo jóge sunu kër ñëw sunu kër rek di fedd li di gën a jàpp waxtu bi ne suñu maa ngi di baax a baax a baax di leen siyaare ci gàmm gi bokkit moo taxoon ma ne nañ fi ñëw ba seet si leen siyaare leen bu baax jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullah kullu xisaalin fihi almuntaqa tuaddadi fa man araada ilma qadri al awliya inda ilahi arsi falyaxtafiya athaaruhu fi juzwati al fi zabbi an manasibi al seydina al muxtaari zil anwaari alayhi ridwanul ilahi lbaari lakinnama maarifatul wali asabu min maarifatil ali li annahu jalla kamaaluhu zahar bila xafayri inda kulli man nadar amal wali fa huwa zuntikaamin min xays ma yakunu fi l anaami li aklihi wa shurbihi ma al wara wa gayru zeyni wa yaaqi darara araaysun fi qadri zil jalaali fa laysa yudrihim siwal askaali mbokki julliti ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara fa tabaarakallaahu bayt yooyu ñu ubbee ndongo lu ñuy woowee Sidi wax ko ci sëriñ Muntaqa fa tabaarakallaahu ci ziar boo xam ne defoon nañ ko jëmee ko ci moom ci màggal Touba gu mag gi nga xam ni amoon na nga xamante ni sëriñ Touba bindkat bu mag ba waxkat bi nga xam ni mi ngi jëlee ca kaw di sottil waa suuf moo waxoon ni ama thalaatha miatin wa asar min baadi alfin qultu zafil jahar fii rajabil muaddamil maymin maymuuni fii watani tuuba bi laa taxmimin te nekk nekkagul fii mu toll nii fa tabaarakallaahu ngeen ñëw ci dëkkub waliwu ngeen ñëw ci dëkkub xutbu ngeen ñëw ci dëkkub xawsu fa tabaarakallaahu maam ñi xamoon ko lool ba tax sëriñ tuuba bëri na waana wax joo xam ne daf koy wax jëmale ko ci kunte yi doy na ci léegi li ma ubbee mu wax ni xam waliwu moo gën a jafe fuuf xam borom bi subhaanahu wa taala ñu ne ko li ngay wax fan la jeexit bi nekk mu ne mi ngi ci juzatul anwaar fi zabbi an manasibil axyaar cheikhina cheikh sil moxtaaru kunti bind ko mu ne wax ni ndax wëliwu dafay koo xam ni ku nëbbu la di lekkandoog yow di naanandoog yow di am soxla bëgg mu faju mu faju bu am soxla bëgg mu faju mu bañ a faju waaye yàlla mooy buur bi nga xam ni ku moo car asamaan tàllal suuf nee na boo xoolee di nga gis loo gëmee yàlla xam ni am na waaye waliw day nekk ak yow di lekkandoog yow di naanandoog yow am na ci biir waliw yi ñoo xam ne yàlla feeñal na leen cheikh naa cheikh Ahmadul Xadim bokk ci waaye cheikh naa cheikh bu Mouhamed Kunta mii nga xam ni moom ngeen fekk si bokk ci fa tabarakallahu ngeen ñëw fi fekk fi ahlul bayti ñii ki leen dalal tey di cheikh al Khalifa Kunta di annaatiqu rasmi waaye kileen leen dalal tey di cheikh cheikh sidi muxtaar gën a siw ci bàyyi sidi muxtaar di cheybat alhamdi borom bejjaaw bu rafet bee yàlla na yàlla guddal fanam waaye ki leen dalal tey di sëriñ baay Bekaay kunta ak Mouhamed Habib As kunta mi ngi fi ak mboolem seen kunta wax ji dañ doon ubbil sëriñ bi waaye ñoo ngi nuyu mboolem seen kilifa goo xamante ni sunu bët mi ngi tegu ci yow ndax sëriñ bi boole woon nañ ci ñi demoon ci màggal ga léegi rek ñoo ngi xool ki doon def conférence bi ndeysaan sëñ bu am solo nusxa yi indil nañ ko sëriñ bi ñu diraasawaat manhaj bi nga xam ni Seyxinaa Cheikh Ahmadul Xadim doon na ko jàngale ba yàlla may ko may yu rey yi nga xam ni laa ya laa yaxfa alal asaaxiri wala al akaabir du ku ndaw du ku mag li yàlla defal sëriñ Tuubaa ñëpp teg nañ ci bët kon mbooloo mi ahlan xadimtum ahlan lakum wa xalaltum sahla Cheikh Al xalifa ñoo ngi lay nuyu. di feddali lam ma waxoon keroog ba may ñëw Touba ci kanamu sëñ mu Mountakha ni lépp luy jóge ci moom di jóge ci ahlul kunti yu ci loxo Baye Sidi lay jaar ndax Baye Sidi mi mooy xattul istiwa bay na Touba wa mu mate ko sëkk nag mate ko sëkk ci jikko waaye mate ko sëkk itam ci taxawaay ndax léeg ñaari kër yi waruñu di réeroo te ay dérive yi naan ay ñàll waru ci am benn yoon la te yoon bi Baye Sidi moo ko tracé kon sëriñ bi mi ngi eh, ziar bu baax sëriñ Mountakha ndax ziar bii ngeen ko ziar. moom mi ngi ko koy delloo keroog bi may dem taawam bii laa àndal di Cheikh Sidil Mokhtar ak jëwrinu kër gee di Cheikh al ak ñi fi nekk ci gunte keroog bi ñuy dem waroon nañoo mat lu mat ñaar fukki doomi Xuraysin ak benn ndax ni sëriñ Muntaxa toll ci moom di ko ñaanal bu baax ak yàgg ndax ak yàggam dafa leen a noppal ñoom ñëpp sëriñ Muntaxa xulafaa yëpp la noppal te ñun ñi nga xamante si nii lañuy tuddee ëllu turuq ñuy ay taalibe bu bennoo gii amut ñi nga xamante si ni gëmuñu li fi mag ñi bàyyi woon dañuy daal di am doole daal di am aw yoon wu ñuy jaar te fekk gisee bii mi ngi am jokkoo bii mi ngi am ñu di ko fésal faw dana leen delloo gannaaw ndax ëpp ñu ñu xam-xam ëpp ñu ñu taxawaay ëpp ñu ñu fit. lii nga ah, ba tax na euh, sëñ bi bu ñu sañoon dañuy fanaan ak yéen ndax yow moom xam naa la ah, ndax euh, xam gi ma la xam. mooy une matin bu jotee ku xiif Touba da dem ko Serigne Abdou <laughs> te doo dem rek daal di xéewlu da nga xéewlu da nga lekk euh, euh, caakiri da nga naan ataaya waaye bu ñu demee ba fajar dem dañu indi benn xeetu mburaake bo <laughs> di la ñaanal bu baax ñaan gi ñu lay ñaanal <laughs> ah, euh, toujours bu ñuy wax ba tudd la dama naan leen sëñ Abdou Samad mm. moom est-ce que sax xam na ndax euh, euh, sëriñ Abdou Samad bi ñu ko tuddee leerub sëñ Touba la waaye itam nga bokk ci kéemaanu sëriñ Touba yi kéemaanu sëñ tubaay mooy koo xam ne du am xaalis du banque <laughs> sëñ bi ñu ngi sant yàlla bu baax di ziar sëñ Fallou mii nga xam ni moom sama sama sama doomu ndey la du sama xarit waaye sama doomu ndey la ah, day ñëw daan ñëw Njaasaan gii ñu def fi ay fan waaw maanaam man moom du ñu ñaar kenn lañu eh, sëñ abul baraka mi ñu fi tudd tey jii bu may am wajur ci kër sëñ tubaa sëñ bas la sëñ Bass mu sëñ Fall waaw <laughs> ah, ba tax na euh, lii rek am solo euh, dégg naa fi surtout sëñ Bay Jaxate lii maamam ju tedd ja wax mhm. rek am solo am kilifaa di li am solo mhm. soo ko amee am nga solo mhm. soo ko amul amoo solo ku wéeruwul yomb ba max wasalaamaaleykum jërëjëf